ambara démb ak yàqu-yàqoom yu takku bokk ci li yéenekaay yi xëyee observateur xëy ne jéey ju mag am ñaari téeméeri dëkkuwaay yàqu ca an ndox mu nangu sëg ya ca jokkul kaw ca tëngéej ñaari bato yu ndox yi teeral ca mbaaw ak yi hôtel yu le ca mbuur le soleil feelu yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne dale ko an mbaaw caaroy ba bar ñi fépp ay kër yu yàqu ak yi matériel am na bato espagnol sax ñu ne bu teeri ca caaroy wal fa joxe ne bar ñi ak mbaaw am na fay njaboot yoo xam ne biti lanu fanaan ca bar ñi ndox ya danoo boole yu baale bagaas yi askan wa ba ci ay télévision mamoudou Pouy kenn ci ñooñe loru ci meru géej ca bax ñi ba tey ci di fàttali ne ay parcelle di terrain maire ba fa woon Maax Diouf baaxee woon na leen ko ñoom ñooñe géej gi nangu seen dëkkuwaay ngir ñu mën caa sànce waaye ñu ne état bi jël yooyu terrain baaxee ko Senelec ngir ab central à charbon maire bu Bargny ginnaaw bi mu demee mugis, ji askan wala mu gis mooy kilifa yi taxawal ndimbal lu tolloog bu plomb le populaire yi dégâts yi géej gi di yàqu-yàqu la fësale ci xëtam bu njëkk ba ci yoon wi nu duppee petite corniche réew mi ndox mi daf koo dagg ñu ne waa service météo ci la populaire di leeral ne jéy ji nag ngelaw la lu métti lu jógee bët saalum tukkee cëb càll mbeer moo waral yëf yi moo waral li ñu ne géej gi jóg lalam ba ci douche yu toll ci ñaari mètre ak genn wàll ngelaw yi nag ak ndox yi bàyyiwunu sax bateau yi ci grand place ñu jàng ci bateau espagnol bu teeri ca waax yu mbaaw ca plage bu mbatal ba bët setee nag ñi daan dem place danoo seen bateau ba dugg ca biir sàcc fa lépp loo xamante ni seen i gët tegu ca muy ordinateur portable frigo bar ay matelas bàyyiwuñ fa dara mbaaw gantel na seeni pexe grand place ne jàpp na ca juróom benn ci sàcc soosé géej gi meroon bu futt waaye audience xalifa bu tedd bi Serigne Sidi Mokhtar Mbacke ak sëñ asan Mbacke gàngooram tàngoon na lool sunu sukkandikoo ci observateur ba ma yëgee la ngeen fi nekkeeg léegi ci laa yàkkamti woon daje noonee la xalifa bu ubi ak ñoom bett ngeen ma nag mu ne ndax foogoon naa ne ordre ak dal gi ma woote fii Touba yéen a ca waroon njëkk waaye yéen a njëkk jalgati ordre boobee amuleen benn jom mu teg ca ne yow Assane Mbacke dégg naa sax ne la yoon sant loolu nag du sa cër ba tey ci observateur ñu jàng ci ne audience bi waxi bataaxalu secret bu Karim Wade yónnee sëñ Sidi Mokhtar Mbacké wax nañ ko ca sëñ bi ne dara lépp ay kàcc rek ci gàttal xalifa bu tedd bi sàkku ci ñëpp rawatina borom audience bi kenn bañ a turam ci waxi politique waxi àddina yu amul benn solo ci le populaire sëñ bi tegal ci waa audience bi ne dama foogoon ne da a fàtte li leen Serigne Touba defal muy yar bi tool yi ak alxuraanul karim looloo wadda mom Karim Wade amoon gan ci rebeus Seydi Gassama amni ci senegal ba mu genné nak mom Seydi Gassama lam wax ci kay yu mel ni témoin ak direct info moy Karim Wade mu mu gis ci kasso bi ku and ak dal ku pare ci xel mak jëm je ngir xex xex ba genn ci limu mu ne li mu ne muite Seydi Gassama ak Amnesty danoo jàpp ne dëppoowul ak yoon muy téye ko téye ci kasso bi ñu waxtaane walu kom kom ak sukkër senegal ne ci marché bi jamono yi Walfadjri ne ministère bi ñu dénk jënd mek njaay mek wa compagnie sucrière ku ne yang koy jiñ sa morom waye Sud Quotidien Seydi Thiam njiital UNACOIS la dalal moom sëñ Thiam la ci xamle mooy du nu nangu benn yoon noteelu groupe Mimran wàllu basket Antoine Mendy ci Le Quotidien ne dootul nangoo ñëw ak équipe nationale basket bu Sénégal ndax nekk du bon wu nu nekkee woon ci Tunisie mu ne ba nu jugee Dakar rek la gëj am mbégte ba nu ñuy ñibbisee ñu baleen ñuy toltalaan ci aéroport bu Tunis ay waxtu yéenekaay bi di jour de sport ne Antoine Mendy wax ca kaw rek waaye jour ko ñàkk a jeex jori ne kenn déggu leen ca ñoom basketkat yi ci gàttal ne Amady Ndiaye moo yey bañ a ñëw gaynde basket yi ñibbiseeg xol yu naqari gaynde football yi dem stade ne talaata tey ji lañuy dem ca Windhoek ngir match Namibie Sénégal juróomi fan ci weeru septembre yéeni kaay bi ne Aliou Cissé woo na Jawandu Koulibaly jot na passeport sénégalais kenn ci yooyu gaynde nag di jilaabo ji dem na Chelsea observateur ne tey lay signé contrat bi ngir ñeenti at la contrat ñaari milliards ak genn wàll ci sunuy koppar di franc CFA